dañ ko ñaanal suñu borom kàttanal ko bu baax a baax a baax tey nag ñu ñëw fan sam-sam fan tëli maam jaara seet fi xale seet si fi ndaanaan mu jugee si journée démb ñuy ñuy félicité Jax bu baax a baax a baax di ko encouragé di ko xaar Jax bonne continuation ndax suñu papa nga suñu lépp nga tey nag ñi doomu sam-sam lañ seet si mu am slogan bu mu génnee loo xam ne si làmb c'est la première fois ma dégg ko muy lan wëndëng moom slogan boobu mu indi si làmb dinañu si leeralal tey jaxal nuyu naa la. Idy maa lay fay. tey nii ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur eh, di sant sama yaay bu baax a baax yàlla sama yaay yàlla na fekkee suñu njëriñ sama yaay yàlla na fekkee suñu njëriñ sama yaay yàlla na fekkee suñu njëriñ yàlla na fi yàlla bàyyil moom moo xam lu mu bëgg si ñun yàlla ko yàlla motale su ma jógee nag di nuyu di dem Sikori nag di nuyu maam Thierno baabul laahi baabul jannate maam Cerno borom daaru baabul laahi baabul jannati yàlla na fi yàgg te borom daaru yàlla na fi yàgg te yaa suñ si jógee may nuyu jëriñ Lamin Kan mu fi borom daaru teg si mu jiite daara sam-sam caara sam-sam Lamin Kan ñu lay siyaar la bégee waaw wa salaam baba pour ñuy débat wëndëng lañ bëgg àdduna ñoo koy laaj quoi wëndëng bi lan mooy wëndëng wëndëng bi dama bëgg a bàyyi ba si kanam ma wax leen luy wëndëng bi. mën ma see ñamal tuuti rek. non non wëndëng bi xam noo leen koy xamee lu may dem di bëre di dem si ngeen commencé gis wëndëng bi di ngeen commencé dem dama laaj naan ma baaba lii wëndëng la lii la wëndëng ma lay commencé wax si wëndëng bi fu mu sookee ak fu mu koy ak li ko waral. da jaxal jaxal koo xam ne rabu àll nga ñëw yokk si wëndëng. yaa wëndëng bi mooy lu ma la wax rek képp koo xam ne jaxal moom xam ne day jaxal rek ba jax naka jaxal rek yaay wëndëg mi nag ma ñëw yokku si te après da ngeen xam lan moo waral wëndëg mi lu si kanam da ngeen ko xam waaw. ñaareel bi ma laaj leen Baba lan mooy moom Imbélé Sile baa ngi nii. waaw loolu waxin la rek. sa boobu tamit bëgg nañ nga leen ndax waxin déggin la laaj ñi xamul dañ ne Baba dafa saaga dégg nga leeral si mais loolu lu tax ma bëgg leen kaa wax lépp si wëndëg bi la bokk ndax wëndëg mi lépp a si ne lépp lépp lépp. te lu si kanam ngeen koy gën a xam nee lu ma si wax kenn dara ñoom dinañ toog ak seen bopp sax ba naan kii lu tax mu ne wëndëng la xam na lu tax mu ne bu tuddee boppam wëndëng. baax na du ma la wax dara du ma wax dara damay baax ba da ngaa bëgg mu wax la mel du si wax dara après da ngeen ko xamal seen bopp yéen ñii. dama koy dee rek. non non naa la ko wax bu caméra yi fayee naa la wax luy loola <laughs> waaw. ñu dugal nag sa digganteeg ku ñu xam Pape Diakha ma seeti ko. mu ne ma idima mu ne ma baaba tardement lam moo tax ma jël ko waaye bu tardé wul woon si lam ma ne ko ndax xam nga ne jaxal si li mu jugee diggante mag ren di seegar dakaa dóor bañ nang ko si ay loxoom nga yaakaar ne xeex boobu su la ko indilee du métti si yow mu ne bu jur ba baaba du xeex ndeysaan tey dañoo ne làmb bëre dóor ndax Pape Dianka moom daa jàpp ne baaba xeex bu mu xeexoon moog ren di seega baaba xeex la mën mënul bëre te baaba jaxal bëre sax la gën a mën ni xeex billaay walaay defaguñu dara nag xamuñu dara waneeguñu dara mais Jalle Birame Diaw am na lu mu def suñun lu bëri li nga xam ne bis buñ ko wanee di ngeen xam kuy Baba Jaxal yoro kos lu mu def suñun bis buñ ko bis buñ ko wanee di ngeen xam kuy Baba Jaxal di ngeen xam kuy wëndam bi am na ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ku mel ne ñoom Modou Baye Fall Jibi Dragon Boy Naar Naar Gaynde suñu champion suñu doyen ñàkk jariñu nag moom ñu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal ndam ñàkk jariñu ñu la ñaanal ndam waa Ramadaan nag duma leen faate waa Pàq ba Pàq ñaambe ku mel ne ñoom Ibou Laye. sa digg ñii dañoo ñii dañoo am combat. di nga sant non santuma sax am combat. di nuyu Mbengue Mboro ka ñaanal yow Mbengue Mboro yal na la yàlla may ndam. Mbengue Mboro yal na la yàlla may ndam. di jëw jóge foofu may si caatu yëmbal sama doom nday waa yëmbal waa naataange farba na ngeen jàpp si xale boobu noonu daanaan la gosu jaamiroo fépp. caatu yëmbal yàlla na la yàlla may ndam le 12 9 points te dañ koy am incha te nag waaw suñu baay faal moo xewle suñu gaynde gi suñu champion man démb dama doon tudd waaye tey day ngente muy kan muy Siteu ndaanaan bi dama doon tudd waaye tey moom day ngente def xew bu mag muy Siteu lépp waaye yow déggoo ma nee nañ événement bi rey xar rey rey ginaar lay gileem raxaale si say mbote te tey teel a woon bis bi teel a muy Siteu suñu ndaanal suñu champion Siteu di la ñaanal ndam yàlla na la yàlla may ndam. ñu ko joxoon ñëpp dañ doon wër la moo tax nga tàmpa. tey jii nii Idy képp koo xam ne Baba Jaxal waru woon jël sa Pape Dianka non non Pape Dianka billaahi dama kaa romb si laamu maam moom nekk woon sama yoon est-ce que ndax tey jii si lu ma jóge baabu kala la jógee ren seega la daan baabu comme daan jóge si Adidas ñëw bëri ren seega daan ko kon du yoon may wàcc di jël ay Pape Dianka mais loolu yëpp ndax la la manqué adversaire. avance bi jëkkeewul si Pape Dianka. avance bi ñu ngi ko jox dañuy bañ booy yu bëri jox nañ leen avance bi jëluñu. booy kan ak kan la. bëri nañ booy ñemee ñu wëndëng bi. laa ilaha illallah ñu ne Baba moo delloo avance. Baba delloo avance. Baba jaxal kenn seetu ko ñu jox ko avance mbër mu delloo. billaahi wallaahi taala barke borom daaro ñu dellu sa la booy di bànn bànn si laam booy yu bëri jox nañ leen sama avance nanguñu koo jël ba Pape Dianka ñëw jël avance bi moom tam muy wax nee na xaw ma lan ak lan ak ba mu ko gisee billaay muy jaay affaire naan ma ba yow baaba laa yow say mbokk làmb ji léegi lii mais lépp luy wàllum làmb di bëre maa ko dàq Pape Dianka xeex sañcanoon làmb waxoon naa ko signaté naa maa la ëpp fit maa la dàq sañ maa la ëpp sañ-sañu laam ma laama ji du bëre sa tur fee laa ko yóbbu pour moom gàllaaj la mu naan sa tur yóbbu naa ko ndol-ndol boo laam leneen ak leneen man ko ëppoo ma fay mbokk te moom xam na ne sa ëpp ma fay mbokk su demee toog ak ay morom dina xam ne moom ëpp ma fay mbokk. arbitre sifflé seen diggante ñaar génn seen diggante. ah arbitre ñu xool lu top suñu ginaaw rek mbooloo bi sam bi ñëpp top topp suñu ginnaaw waa Kër Massar Fass Medina Fass Malika Yëmbal Ramdan guy ga ñëpp topp ñu mbuur waa mafia mbuur bi mookol bu mbuur bi ñëpp topp ñu nga xam ne xam nga du yoon ñu nekk si làmb ji di yaafuus ñu taxaw tee xool làmb ji lu mu laaj buñ duggee si géew bi xam nga booy bëri ñëpp lay conseil ki dina la jox conseil am ki jox la mais yow mbër bi boo nekkee si làmb ji xoolal lu mu laaj nga def loolu ma ñëw def teg am naa moom mu am benn ma am trois non nee nañ ay xaw ma cumukaay ak xëpp nee na arbitre wax man gisuma lool sax. cinq minutes la may nag baba est-ce que xëpp woo lu tolloog vingt minutes. waaw parce que lamb dañoo bu ñu fayoon sax téeméer dem nañ si def nañ si ay millions kon bu ñu ñëwee dañoo war a jël suñ temps. sant yàlla yàlla na doon sax ay milliards sant yàlla. yàlla nañ dem bay fayee ko ay millions milliards si lamb te am nañ gëm-gëm ne am nañ sañ-sañ te dinañ ko fayee ko te dinañ teral suñuy daan Pape Dianka fi ñu toll nii coow li bari mbooloo mi nga indi stade car macha allah nekk ay xale comme yow nag li ngeen magantee bariwut tey jii baaba fan la jëm. fu may jëm nag ñëpp xam nañ baaba fu muy jëm waa làmb ji di jëm ñu si kaw yee doon naa fay laaj ay mbër boobu caatu ngéwal am na combat mais soxla moom am na combat moom booy Dakar mais maa ngi toog di xaar booy champion ñu nekk si kaw maa ngi seen kaw ñoom ñëpp maa ngi ñëw. comme ñan. non bëri na ñu nekk si kaw bëri na. ndaanaa ni yéen xam nga ainsi Baba Diakhou fa la war a dugg. xam nga man naar naar yaa saa bëgg naar yaa bay tey jii boo demee jënd segment kenn du la segment bi moo jëm si moto bi kenn du la segment bi moo jëm si moto bi segment bu ne xam nga fi mu jëm. say adversaire xam nga leen. samay adversaire xam naa leen mais du ma toog di si lim kenn mu foogoon Baba Diakhou la koy préparé. maa ngi fi pour ñëpp je suis là pour tout. tuddoo leen ngir dara da ngay ngir ñiy seetaan xam ne Baba ñi ñooy ay nattaangoom. nañ ma jox Modou Lo. nañ ma jox Balla Gaye. yow ñooñu laa soxla ñooñu maa leen laaj woon nag bee laaj bu boobaa nag si ngeen xam dëgg dëgg dëgg nag baa ngi nii bu ñu demee ba foofu si ngeen xam ne piir woon nag baa ngi nii nag woon piir baa ngi nii. ñaar ñiy bëre grand combat Baba nee na ku si daan soxla na la. muy kan ak kan. muy Ardo ak Mbagnick. Ah, Ardo ak Mbagnick yal na leen yàlla defal jàmm rek bañ génn seen laama ji waaw ah, loolu laa leen. Baba nee na ñaar ñiy bëre ku si daan soxla Ardo ak Mbagnick non waxuma ko taxuma leen de mais tamit ku si daan boo ñëwee moo may la chance waxuma ko daanu de ku daan moo may la chance. Ardo ak Mbagnick. Arafa sax buñ ma ko joxee ma lekk avance xam man nag dama toog di tëkku mbër mais Arafa suñ ma joxee ma lekk avance am. bu ko wut adversaire. adversaire baa ni nit xaay na na avance bi ñëw wëndëng bi lekk ko. waaw ñor kay. tey bi nga woon fi ñu toll nii pare nga pour sa diggante ak Arafa. waaw pour tout pare naa pour nañ si lépp Arafas lekkal avance wëndëng bi. tey jii bu dul Arafas bu dul Arafas yéen ñu ngi ci làmb ñoo xam ne bu ñëwee Baba Jaxal at diw rek njabootu lamb man say supporter dañuy ko comme sa diggante ak Pape Diakha bi ñu ko waxee rek ñëpp dañoo kontaan dañuy ne ay naataangoo lañ ay adversaire lañ. maa ngi Ada Fass naataangoo ay adversaire lañ bu baax sax na ñëw waaw. adversaire bu dul moom waa laama ji bu ñu xool ko nga xam ne Baba Jaxal ak kii laamu la bu ñëwee ñu jël ko. diggante Ardo ak Mbanj bëgg naa ku fa génn yéen ñaar dafa jaar. waaw ba booba yàlla na leen yàlla defal jàmm ba ñu bëri si combat boobu yàlla may leen ndam arog mañi keer ku si ñëw nag ma may la ma may la la sens moo nekk cinquième combat si moom manqué quatre victoire benn défaite jom moo ma jom bu kalawaan mbooloo moo sama premier combat maa ngi daan bilende bu Grand Médine ma ñëw bëri jóge fa daan deuxième ñëw bëreeg jom mu daan ma ma ñaax mais loolu sarax la waroon rek bu ma doon génne waaw ma ñëw jóge deuxième troisième mu bëreeg Adidas daan ko ma jël reeni seega quatrième combat daan ko ñu jóge fa jël papa jànkat daan ko te des na booy yaa ngi si kanam de booy sa duma xam nga leen Blindé bi nga daan ku ko xam-xam ne ndaanaan la Blindé ndaanaan la jàmbaara maa ngi doon seetaan interview am sax waaw seetaan naa ko keroog envoyé nañ ma leebe ba mu seetaan ko mais jàmbaar di ko ñaanal nag ba man ba léegi nag maa ngi dégg mun a bëreewul mais di ko ñaanal nag Blindé. wax na ko moom nee ma ba léegi avance bu ñëw gaay ba léegi bëreewul te man naa sikom koom xaw ma quatre combats mais Blindé di la ñaanal jàmm yal na la yàlla may combat yal na la yàlla may combat am si ndam du rëy rëy rëy rëy eh, yow Blindé Weuz yaag seexu yàlla bi di la ñaanal combat di la ñaanal ndam defet bi nag yàlla na fa yam mais koo bëreel keneen ku dëkk ku nekk jale bi raam ca wala sam-sam na la daan. bu lamb boole si kanam nag. non lamb duñu boole ndax ainsi mu ngi suuf dégg na mu ngi suuf. day dox de lamb day dox de. ma gestu ginnaaw si kanam rek ana rek wën nañ. beneen de bu bu départoon ba nga ni lamb boolewaat leen si kanam comme coow toppaat leen comme Sa Thiès Balla Gaye Boy Niang wala Sa Thiès keneen ak keneen nga yaa ne coolo du ah ñu bàyyi bu booba rek ñu bàyyi bu booba rek dégg nga fi ñu doon nii nag baaba ñu waxtaan sëriñ si làmb ban avance moo la gënal boo xam ne bu duggoon tey ji du dellu avance ma gënal maag Modou Lo maag Balla Gaye Balla Gaye sax sama mbokk la Balla Gaye tàngoor lañ la waaw avance boo xam ne bu duggee taj ménagère du delloo baaba de xale yi sax duñ delloo non incha xaw ma ko bu ñëw baax na ku ñëw ñu bëre nga ne Ada Fass moom doo dee l'avance. waaw kooku moom Ada Fass maa ngi koy doog wax mais caatu ngéwal dafa am lu nga xam ne moom kaa jàpp sama xol nag. seet si naa la nga wax caatu ngéwal diggante caatu ngéwal lan la. caatu ngéwal. billaay wallaay taala saa suñu ma joxe avance am ma jël ko. dafa am fu ngeen jaar wala lan la. jaaruñu fenn. man maa ko bëgg mos nañoo daje sa booy Amet Amet mu nekk États-Unis Amet moo koy nuyu sama booy Amet. dafa bëgg làmb nag ñu koy siyaar booy amet mos nañoo woo appel whatsapp di invité ñu caati ngeel naan baaba jaxal yow fa nga tool da mooy tokk buñ dajee lii xam ne wën nag bàyyi nii yow daal su ma déggee sa wax caatu ngéwél gi moom avance am foo ko romb day ñibbisi ngéwél bi avance am foo ma ko romb dama koy foqati nii foqat dugal sama poos comme këf daw bi di nga xam ne doo doomere <laughs> te xaraam baa ngi fi. mu dégg ko. caat bis boo jëlee avance wëndëng bi. billaahi di nga xam ne doo doome te xaraam baa ngi fi. caatu ngéwal. caatu ngéwal. caatu ngéwal yow laay waxal. bis boo jëlee avance wëndëng bi. caatu ngéwal yow laay waxal. bis boo jëlee avance wëndëng bi di nga xam ne doo doome te xaraam baa ngi fi. idi waaw. moo la ne wëndëng bi ragalul lool. samay wax nag wax waxi baaba waaye wëndëng baaba monument baaba ku xam monument xam ne sa waay mooy monument. waaw kooku taja suñu booy la mooy ma sam-sam caaroy sam-sam yëmbal ndax ku xew la taxaw mooy ñu jiitu si làmb nag bañuy xale bañuy xale moo ñu jiitu si làmb moo daan yëngal sam-sam bi ñëpp topp mu tëdde woon caar seeraas ku mën a muy taja yaay di ko sant bu baax a baax a baax mooy monument moom taxawaay monument la taxawee fii ndax boobu xewle mu ngi fa gis nga ko mu ngi nii keneen ak keneen tam mu xewloon noonu lay demee yaa dina nag mais ma niw ma sant ñi nga xam ne dañuy jàppale Baba jaxal waaw sant gërëm ku neex nga tàggoo waale Baba mu ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp ñi nga xam ne dañuy siyaar Baba Diakhal di nu Idy Ba président Aïssé Diamiro Iba gis nañ taxawaay bi ñu lay fay bu baax a baax a baax kontaan nañ di nuyu sama yaay Fadaabo Fadaabo kontaan naa gis naa enveloppe bi Fadaabo ama sa fay yéen waa Suisse Gold di nuyu waa Suisse Gold di leen nuyu di woo Issa Daabo Yaya Daabo Seeku Daabo Mama Daabo yéen Baba Jaxal mu ngi di woo yéen ñëpp di woo Nguure Al Amin waa Al Amin ma leen di woo waaw ñoom Nguure kontaan naa Baba Jaxal kontaan na waa al amin ay ñoom Aysa ñoom ñëpp mu neen biir di la wax Baba Diakhal kontaan na si yéen di nuyu ñi nga xam ne mooy jàppale nañ Baba Diakhal ay ñoom lay seen ay Amadou Ba ay Amet Diaw Amet Diaw waa terrain naari idi it waaw di nuyu suñu maire Leena Jeejo waa di nuyu waa terrain naari ida ma lay nuyu aw ma sa fay kontaan nañ si yéen trop ñoom ñaxal ñoom ñaxal ah añam Gose añam Baba waa Tere Naare ñoom Ousseynou Ba ah sama imam bi jëwrin di leen siyaare ñëpp waaw di nuyu nag waa naataange naataange mi nga xam ne Baba foofu la jaxal foofu la kiiwee may nga xam ne waa Jéegi Raay sama gars yi nga xam ne maa ñoom ñoo daan ànd ñoom Ousmane Ndiaye ay Mafatim waa soog bi ñoom Bugut ah ñoom Pape Bolle ñooñu noonu ma leen nuyu di leen siyaar waa soog bi di nuyu waa naataange ñoom Fata sama jigéen. ñii tey moom ñooñu laay nuyu ñoom Fata ay ñoom Xawa Sow Mayram ñoo ñoom booyoon sama ami d'enfance ay ñoom Ibou Sène temps ñoom ñëpp booy ma leen nuyu ay ñoom Yuskam Bib Diop di ko ñaanal ndam li yàlla na ko jig Bib Diop. di nuyuwaat ñoom ñëpp sama ami d'enfance ay ñoom Mbaye Oeuvre ah ay Fallou Bouda ñoom ñëpp mago sama jàmbaar yi mago Zikor laa yaa su ma nag di nuyu sama benn garaas seen business saa su ne mu koy nuyu nag su ma fa jógee nag may nuyu sama benn grand frère seen business kooku nee naa sama koy nuyu damay sama temps sama grand frère la ya entreprise la yor fii nag portable bu ma yor moo ma ko may waaw damay publicité nu ma seen business di woo waa Samsam jàmm ka si baaw télé Maam Jaara yaa am nañ société entreprise bu baax bu mag bu fi nekk saade bu seen day jaay kóol frigo ah lépp ay appareil numérique vente lor te noo bëgg da la koy livreel ah di jaay ay appareil lépp lépp lép non kooku lu ma may la kaar dem xam nga kaar amul xam nga oto dañoo gërëm moom moo fi indi ay oto. si dëkk di jàppale waa dëkk bi lu mu yor publicité ko. xam nga oto amul oto oto amul mais moom da see jàpp di nuyu jili jili birs mi day defar ay ay ay menuisier armignon la ku mu defarul buntu sa buntu baaxul ay palanteer entreprise la jili birs mi ma koy baax di nuyu baylaat bitik baylaat Baye Laat di la nuyu yaag say mbokk ak sa gars yi Baye Fall yi waa baay Daaru yi ñoom ñëpp waa Daaru ñoom Abdou Khoudoss ñoom ma leen di wa salaam waaw jox kii. asalaamaaleykum sama rakk la dégg ngi <laughs> bëggee gars yi ma di leen wax jërëjëf quoi ci kontaan nañ trop bi. dañuy wax naan ñi nga xam ñoo jàpp si combat bi dañ leen sant di leen gërëm seen fay parce que tey booy dañ naan am combat ci ñoom muy metti ma dugg samay nit ñu jàpp si nañu lépp loo bëgg rek dañ koy def dañuy sant Léna Diédhiou fiti madame la maire dafa ñëw ba fii seesuñu jox xaalis ñu ngi sant Aline Mbaye président Ngagne Samb daa ñëw woo ma téléphone envoyé ma ne ma bu motul ñu wax ma ma dolli ñu ngi sant Amadou Ba borom Sandaga laay sekk bu baax yaay borom Sandaga nee bu buñ paree nag nañ ñëw foofu noonu ñu toog seesu waxtaan ak moom waaw ñu ngi sant Ndeye Marème waaw femme bu nga xam te amul benn caaxaan képp ku bëgg dara boo ñëwee mu jàppale si ñu ngi sant sang yaa ngi dégg ay Aliou Cissé gars yëpp jàpp nañ ci combat bi kon nag dañuy wax naan lii rek commencement la. lu ñëw eh, mooy dàq moom ngay wax Baba Diakhal lu mu sol si obom pressé. gis nga yii nii yu may sol yooyu noonu yëpp sang moom a koy jëndal. booy la nag sama morom la ñëw boo ko ekki di bëre mais ba mu bàyyee bëre di liggéey bàyyi ñu seetaanuñu benn yoon moom sang. di nuyu nag wëndëng yi ma fayaa wëndëng bu mag bi. yaa wëndëng yi mag yi ah wëndëng yi ndaw yi mais wane ngi mag yi ñoo topp suñu ginnaaw ku mel ne kalaamu Baye Fall bi bëccël borom sareet bëccël seeri dixaa bàyyi kalaamu mu ndaw yaa di nuyu tam ñi nga xam ne ñoom ndiiga ñoom maara ruur maara añam jibi yàqu ñoom sëriñ cubu yaa ñoom ñëpp ñi leen di bége amuñ seen fay waa sam-sam ñi nga xam ay Iba Ndiaye Baye Fall ñoom ñëpp megeen seen kalandooy ñoom Saliou mbay sofër sareet yeeg ñëpp sareet yeeg taxi bagage yi ñëpp wan nag waa waa waa Fora waa Fora fàttewu ma leen oto taxi bagage yi ñu fa ne waa Ngura ma lay maako maako borom maako ba tey fàttewu ma la yaa ngi jàpp si Baabu Jaxal eh ñu ma diggoon nag téléphone yeeg xaalis bi téléphone bi iPhone yéen ñii dig ma ko borom 100000 yi 10000 yi ah Serigne sama xaalis maa ngi ñëw Iba maa ngi ñëw yéen ma diggoon nag ak ñu ma diggoon nag kii bi iPhone bi. maa ngi ñëw jël si woon ak dégg ngeen ah. Aïssa waaw Aïssa. Aïssa bu amin service. ak Moussa waaw waaw ah, kii la may na ma fi téléphone moom. Mass jox ko ñu benn de. Eh, Mass mooy borom fora. Mass borom fora ah. yee eh, nooree ni moom may liya ah, ki mooy jaaykatu bant yi di ko nuyu di siyaar. Eh, waaw. gis nga yëpp ñu ngi jàpp si waa. non ñu ngi ñëw dañuy ñëw. parce que luñ gis si wëndëng bi la moo tax. waa di nuyu nag mafia yi P mokal mokkal mooy mokkalu baaba jaxal VIP mooy VIP baaba jaxal di nuyu waa mokkal baaba jaxal bu soxla woon sarax sax waa mokkal dañuy génnee VIP di nuyu nag kenn ko xam dafa sori moon man muy Abdou Séeréer du ma ko mës a faate Abdou waaw su ma fa jógee di nuyu waa mokkal waa VIP waa Numbaara waa Waaki Suul mafia faramaareel bi ah waa Numbaara bi ñoo ñëpp du ma leen faate suma ma fa mooy nuyu ñi nga xam ne ne yow jar a ñi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw du ma leen mës a fàtte xam ne caabi da leen féete ginnaaw samay gaay yu fa nekk ku mel ni Paate Paate Cissé sama waay di la ñaanal jàmm yàlla ngeen génn si jàmm ku mel ni Baye Sidi ñoom du ma leen fàtte de sama jàmbaar ñoom a ak ñoom Wëcc ñoom Buuna jàmbaar yooyu noonu dañoo bokk si Baba Jaxal ak ñoom Moja ah ay ñoom Long Ibou Ndaw sama grand frère yooyu ñëpp ñi nga xam ne dañ leen jàpp ay ñoom Ibra Mbot Buuna Ponkal mi jàmbaar yi baaw fàttewul ñëpp ma leen nuyu di leen wax baaba jaxal seen jaxal la jaxal du leen mus a maa ngi fii nag mais xel yaa ngi foofu barke alxuraan maa ngi leen di ñaanal saa su waaw di leen ñaan di ñaan di nuyu autorité yi Macky Sall jàmbaar yi damaa bëgg nga jijal ma sama jàmbaar yi nekk ci biir waaw du wax nag yow Macky nga ñoo jàppale nag ñun waa Sam Sam ay jeunesse lañ te dañoo bëgg liggéey ndaw yaay ni gisoo buñ waaye ñun dañoo bëgg liggéey ndaw yaay ni ngeen jàppale jàmbaar yi indi ñun ay liggéey ñun liggéey te ñun jàmbaar lañ dañoo bëgg a teral suñuy yaay bëgg a teral suñuy waa kër bëgg a nekk ay soutien de famille yor suñuy kër di ñaan lool autorité yi ngeen jàppale jàmbaar yi jàppale xale yi ñuy liggéey ñu amuñu dara lu dul ñooñu billaay walaay di leen wax jàmbaar ñu nekk ci biir ñu génne leen te yàlla tax Baye duma la mos faate fàtte sama jàmbaar ji yow ak morom Baba Jaxal munul dem saa ñooñu ñu nekk si biir kaso bi ñooy Baba Jaxal te ñooñ buñ fi nekkoon billaay wallaay man du ma xaj esaat bu boobaa may ñibbee ñii ñëpp a ma bëree ba pare ñëpp may toog di ñaan ñu génn si jaamu Baba Jaxal dem Siteu yal na la yàlla may ndam ñàkk jariñu yal na la yàlla may ndam lu rëy ñàkk jariñu suñu champion yal yàlla may ndam ñàkk yàlla na la yàlla may ndam meng mbooro yàlla nga am ndam caatu yëmal yàlla nga am ndam sama champion sama roi des arènes suñu tête de file Boy Nar borom janvier yàlla na ko yàlla may ndam lu rëy billaahi lu jafe nag idée lu jafe si mbër naar amul dara yorul dara mais barki alxuraanul karim booy bu am combat moo lay Boy Nar billaahi wallaahi taala barki dama maa ma baaw foo man ko maa ngi fi mu ma yónni booy ma yónni booy fu mu ne pour man leneen la mu yëkkati xaalis yu bëri jox ma booy naat ñu fayam ku mel ne ñoom Modou Baye Fall xaysara yal na la yàlla may ndam sama doomu nday sama simo frontière nag ma koy encouragé di ko wax ay ndaw lañ supporter frontière yi Baba Diakhal ñëpp benn lañ frontière bul découragé nañ si nekkaat sama doomu nday la sama simo suba nañ takkaat daal di nekkaat demaat écrit ba di la ñaanal jàmm defet bi nag yàlla na fi defet bi frontière yàlla na fi yam frontière defet bi yàlla na fi yam yàlla na la yàlla may ay ndam yàlla nga doon roi des arènes yow frontière dimbali sa yaay waaw xam naa sa papa génn àdduna na nag di ko jaale yàlla na fi yàgg te wér wasalaam. papa ñu ngi lay bu baax a baax a baax tamit di la joxaat sa wàccuwaay bu wér-wér di ñaanaat tamit di waxaat tamit autorité yi dëkk yëmbal sam-sam nañ gën a gestu frontière bu mag ndax dafa tawat na ko yi gën a gestu gën ko soutenir ñiy politique di nañ protecte frontière ku ku ko tawat fat ba mu wér jaru dem fenn jaru ngay campagne suñu borom dina la jàppale si li nga bëgg. di woo autorité yi ñi nga xam ne ñoo dëkk yëmbal sam-sam jaama gën Modou maa ngi dégg ngay jàppale ay ñeneen ak ñeneen frontière seen kër boo doxee cinq cinq secondes nga àgg sa kër sa diggante këram kër frontière Modou Mbène Diop di la jàpp di la ñaan te yàlla tax nga ñoo jàppale frontière sono na te soxla nañ dimbal ñu leen di woo di woo maire Bara Gaye di la woo ngir yàlla nga ñoo jàppale si frontière kooku jàmbaara ba tey bàyyeeguñu chaque jour dañ koy woman mu ñu écrire di seetaan contact kon xam ne kooku bëgg nañu frontière di la ñaanal yàlla na yàlla fëgg sa bopp nga am wér am tan frontière di la ñaanal yàlla na yàlla fëgg sa bopp nga am wér am tan di nu sa waa koñ na waa Mbéda Dame Diop ñoom ñëpp bañ nañ sa ba Mor Mène papaam Mbéda Dame Diop papaam te frontière foofu la dëkk. di nuyu waa daam Dame Diop frontière sama mafia bi gars yi la yaakaaram yëpp ñu leen di siyaar Baba Jaxal moo leen di lu bëri daal dégg nga yow wasalaam. Baba Jaxal gone ak gi waaw di wax nag sam-sam tali maam jaar di leen bëggewaat bu baax a baax joxaat seen wàccuwaay di wax nag dama leen di déclarer guerre lundi dinaa fi ñëw ki moom lundi nag xam na boppam ki moom lundi xam na boppam sa dinaa fi ñëw lundi ju ma ñëw nag dinaa indaale gàtt gàtt ay douze alkaati dinaa fi ñëw lundi nag ci buntu buntu garage lay taxaw nag xaw ma garage gu mu doon nag waaye ci buntu garage lay taxaw waaw ki may wax loolu am na boppam nag waaw di bëggewaat <laughs> ñëpp di sigaat ñëpp di joxaat ñëpp seen wàcc waay rawatina waa PC waa Cap Manuel waa Fort yéen ñi si biir ñëpp maa ngi leen di bu baax a baax di leen ziar di leen seen waay di wax nag yàlla miy borom jàmm sax comme jàmmal nga am jàmm yàlla yàlla defal jàmm ndax garabu jàmm ndoxu jàmm boo ko arrosé doyut di dee beneen émission beneen champion fii si SBT Média Mame Saliou borom jur ak maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax. boo waxee maam Saliou sama xel day dem ci waa Seras kooku moom Saliou du ma ko nuyu sax du ma ko nuyu du ma xar Saalum nag Saalum mbaam xoox Saalum mbaam sëf buuse yi nekk ci taabul yi di leen di sant di sant waa Sall yëpp di nuyu waa Saxaaf Ba waa Louga waa Ñomre ma leen di sant di leen nuyu bu baax baax Pape Ndaw kontaan naa kontaan naa Moulay jàmbaare waa Seras Ndaw Saxaaf Mor Samb Cheikh Baye Fall Baye Fallo Baye Fall sama Baye Fall Cheikh Baye Fall siyaar naa la Cheikh sama mbër sama champion siyaar naa la di waa Seras ñëpp am ay pa yére ñoom ñëpp gaan ñu naa ñëpp ñëpp ñëpp képp ku nekk Seras waa nekk waa àll ñaar di jaay nag ak ñëpp Baba Jaxal moo leen siyaar comme limul nag gaan jégalu di waa ma fi am meew bu ñu may jox meew ah ay Fallo Pape Ndaw Pape Thiépé ñoom ñëpp waa mafia Seras bi Modou ma lay nuyu ay Fallo mas leen ñoom ñëpp di siyaar mafia meer bi ah jaxal bi siyaar na leen waa mafia meer bi dara big